أمسينا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا مبكي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نونجي مقل الله تعالى وتبارك دي جلت ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم يكون الجام مم أكي صحابا التابعين له بإحسان إلى يوم الدين كم نينيكو خمي ku ñu yàgg a topp ci tafsir beeg masjid bi da ngay fekk ni saa bu weeru koor jegetee day am benn bis boo xam ni duñu ko tafsir waaye dañ ciy def benn jotaay bu gàtt ci bayaan wala muhabar ngir mu nekk suñu yóbbal ci koor gi ñu jëm tey nag ñuy ñëw ci وصايا للشباب في استعداد رمضان maanaam ay conseil yu ñuy dénk jeunesse bi ngir ñu waajalee ko weeru koor weeru koor comme ni ngeen ko xamee li ci def mën nga ni bëreetul daanaka ñetti semaines yi sax manqué na kon gan gu toll ni koor su fekkee day ñëw ñun ñëpp war nañu ko waajal rawatina borom kawar yu ñuul yi nga xam ni borom bi dafa am cofeel ci ñoom te bëgg leen surtout ndaw yoo xam ni caaxaani àdduna waxuñ ci dara dëgmal rekk seen boroom te seeni moroom jubal ci àdduna kon ndaw ñooñu fierté islaam lay doon fierté sunna lay doon waaye mbétteel borom bi la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne borem bi day yéemu ci ndaw loo xam ni amul benn ittey bëgg àddina ittey bëgg àdduna mooy lu koy jëme ci bàkkaar di dox diggam ak boroomam loolu nag ci góor ak ci jigéen lay am kon bu weeru koor dee ñëw war na nag ndaw ñooñu ñu ñaaxleen leen dénkaat leen ndax ñoom ñooy cible bi cible bi mooy ndaw ñi ñoom la àdduna soxla ñoom la bakkan soxla waaye ñoom la seytaane soxla borom bi it ñoom la soxla kon ndaw ñi weeru koor mi ngi ñëw nekk shahrul xayraati wal barakat nekk weeru yiw ak barke yàlla nañ ko ci yàlla may kon jaadu na ngeen jéemtee jege seen boroom walla ma ni ñu jéemtee jege suñu boroom ci topp ko ngir mu gërëm ñu ndax ñu mën a texe jëm àjjana yàlla nañ ko yàlla may lu mel nii ki yàlla yónni alayhi salaatu wassalaam da daan kontaan ci ñëwuk weeru koor sahaaba yi mu yar daan ci kontaan mu dem bàyyi leen fi ñu topp les moomu te bàyyiwuñ ko ba ci tabiina yi ba salafu saalex mu weeru koor doon ñëgu da ngay gis ci ñoom mbégte ak kontante ndax xam nañ ni weeru promotion la waaye xam nañ ni weer la woo xam ni ku ci gañe kañot kañot bu rëy ngay gañe yàlla nañ ko ci yàlla may bokk na ci li yonante bi sallallahu alayhi wasallam sallam begele sahaba yi te ba tey mbégte looloo ngi fi nag tëbul ben yon demul ben yon dana wax sahaba yi ne len ginnaw kontantem qad jaakum ramadan shahrun mubarak افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي يننتبه صلى الله عليه وسلم دول صحابي wax saxaaba yi ne weeru koor ñëw na na ngeen yëg ni weeru barkeel la ndax lan moo tax shahru ramadan allazi unzila fihi alquran quran doy na barke rek mooy mooy anniversaire alquran al yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk ci nag juróomi mbir ñeent yi ñu war koo bàyyi xel ngir ñu mën a am juróomeel bi kon juróomi mbir la ci tënk ñeent ku nekk na ko bàyyi xel ngir juróomeel bi nga mën koo jëriñoo ndax juróomeel boobu moom mooy cagnotte bi maanaam bu doon loterie la dañu naan li gën a rëy ci juróomeel bi la nekk kon pour nga am chance am juróomeel bi ñeent yi il faut nga bàyyi ko xel bi ci jiitu mooy weeru koor yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne iftarada allahu alaykum <coughs> siyama yàlla day la mu farataal ci weeru koor mooy woor ñu woor ko moo tax ndaw ñi maa ngi fàtte sam bopp di leen fàttali ne istaxyu min allahi xaqan xaya rus leen yàlla dëgg-dëgg rus yàlla ku yeyoo ñu rus ko la te ñu xam ni yàlla ku ñu bëgg la ku ñu yërëm la borom boobu def ñoo bëgg waaye def ñoo yërëm kon yow ndaw li ngal la bu la sëg jeunesse nax mukk la taxurrannaka shababak wala quwwatak sat ndawe ak sa kàttan bu mu la wor ndax kat dafa am wor kat bu mag boo nekk ci biiram borom bi tel ko wax ne fala taxurrannakum alxayatu dunya wala yaxurrannakum billahi alxaruur yéen daw yi yéen julit ñi borom bi neena aduna mi di waja jeex bu mu len wor aduna day worate bim fi nekke ba léegi musu stable ci ken ñep ba ci yonant waxtu wu nekk day ñëw pour wor len ndax luy jeex la kon yow ndaw li préserver sa kàttan ak sa ndaw li lay may nga préserver ko nag mooy sa xel il faut nga mature pour xam lan nga bëgg boo doon tëral projet da xool objectivité yi lan la lan mooy suma objectif ci projet bii ma jëm lan moo ma ci war a dugal lan moo ma ci war a génne su ma ko jaaree nii lan laay am comme résultat résultat yi ndax dina nekk yu favorable wala dina conséquent contre man kon loolu loolu kenn ku nekk même ci àdduna àdduna daf ñu jàngal lu mel noonu kon mbir mooy dugg war ngaa xool la cay njëriñ nga taxaw ca la cay lor nga jéem koo bàyyi xamal mukk ni yow ndaw li weeru koor yàlla santut la ci nga jaamoo ko lu gën a rëy woor ci weer wi weer wi yàlla tegu la ci lu gën a rëy nga woor ko moo tax yonente bi ne iftara allahu fiihi siyaama wala aleykum siyaama yàlla dafa farataal ci weeru koor ngeen woor ko kon li la yàlla teg ci weeru koor li ci gën a rëy mooy nga woor ko yow ndaw li yàlla dafa bëgg nga woor weer wi ndax dalaa taklif dafa am lu mu teg sa kaw waral ko sa kaw te lépp luy priorité soo ko bàyyee leneen loo dal mën naa am nga am ci quelque chose pour cent mais pour pourcentage normal bi doo ko am parce que li ñu farataal yow ci weer wii mooy nga woor ko lépp lu ñuy def ci weeru koor li ci gën a rëy mooy woor ndax boo xooloon les cinq piliers de l'islam juróomi keno yi islaam yi woor weeru koor ca la bokk borom bi ne man shahida minkum shahra ah falyasumhu yàlla nee na ku weer yu fekk ngay dund te ànd ak wér kon fasaase falyasumhu woor loolu la loolu la yàlla teg muy koor googu amul beneen jaamu yàlla boo mën a indi mu mën a remplacer woor ci weeru koor loolu nag dafa laaj dégg bu baax a baax amul jaamu yàlla boo mën a jëli indi ko ci weeru koor lu ëpp weeru koor doole amut loolu defe naa su ma ko déggee nga dégg ko rek nañ comprendre lan mooy njëriñu koor gi kon koor gi liñ ñi ci teg mag ñeeg ndaw ñu surtout jeunesse bi mooy ñu woor waaw bu fekkee jeunesse boo xamante ni dañuy sàgganee koor dañuy fowee koor dañuy fowee ndigalal yàlla bëgg seeni bakkan ñooñu ñu ce koor gi danañ ko jox itte tontu bi moom mooy déedéet kon bu fekkee ku am xel nga majeur feebaroo woor rek moo ci sa farat leneen loo ci def ci lu baax da nga ko cee dolli ngir gën rafetal koor soo ca saraxee da ut saabu ngir sang koor mu gën a set soo ci jullee da ngaa gën taaral koor waaye bu fekkoon ni weer wi ñëw na nga ànd ak sa xel te feebaroo ban koo woor beneen ibaada boo def koor moo ko ëpp doole ndax yàlla daf ko farataal ci yow kon yow ndaw li waroo njëkkante ci uti leneen wala defi leneen wala njëggi leneen li nga war a def mooy fexe sa wér-gi-yaram mat nga pare pour woor ko ndax koor melokaan la ci solidarité ak malaaka yi ñoom ñi nga xam ne duñu lekk duñu naan kon yow boo lekkul naanoo xaw nga leen a nuru te mënoo ko def vingt quatre heures bi ñu wutal la heure boo ko ciy def kon loolu solidarité lay nuru ak moom mbokk donte da bàyyi woor uti ay sarax génneel sa xaalis ay milliards génne ko dimbaleel ñi woor dëkk bi ñépp ku nekk jox ko un million kuy woor ngay ut tuyaaba ndax dana tolloog woor bés bi ah ñi xam-xam nañ du tolloo de pourtant ay milliards nga génne dekeese ko borom kër gu nekk nga jox ko un million ñaata la ci tuyaaba kenn xamul nu mu toll boo joxee lu toll noonu te wooruloo te woor war la feebaroo dara dalu la ma ni loolu nga def koor gi moo ko ëpp doole ndax moom lañ la sant xam loolu dégg ngeen ko wala déet loo mën a uti ci ay tuyaaba lu dul woor ci woore ku gën kon boo wooree ba pare nag loo ci teg ñu doog koo nangu maanaam boo wooree ba pare day tekki ni garab bi jeeb bi na léegi nag yeneen tuyaaba yi nga def mooy fleur yi mooy fleur yi koy taaral mooy saraxe bi dimbale nit ñi def lu mel non ndax yàlla lamu la tek te dila ko daal laaj moy koor la farataal ci yow te daf la koy laaj ci yowal qiyam bo gor gor lu won bañu wor chaque jour nga utal len ñu ndogu préparer kër gu nek chaque jour ci wéru koor jox len 10000 francs ne len dépenso len da nga am tiyaba de waye du toll ak wor ndax sa ñàkk wor yow lool lañuy lijeenti ba pare doog a jëm ci li nga def beneen bi loolu buñ ci yeewee jeunesse bi xool leen jeunesse bi ni ñuy mel ci weeru koor dangay xam ni ñi ñu bëgg diine lañ mais dañ leen a dévier dañ leen a dévier waaw ndeysaan xaw ma VDN la xaw ma voie de nord lañ leen def waaw ñu bàyyi Dakar jaar ca kaw wëri ñu foog ñi Dakar lañ dem ñu yóbbu leen jam ñaata ñu dem seen yoon loolu mooy mbir mi ñaata ndaw ngay gis weeru koor ndogu jot xool leen télé yi ni ñu njëkkantee joxe café joxe suukar joxe nangam nangam ñooñu koy joxe est woor nañ loolu ñuy joxe est-ce que ci ñoom léegi nag bu ñuy bëggee jël loolu ngandal ko ba di ko waxtaane ci ay émission nan gars yi lu ñuy def nangam nangam loolu du wax ji wax ji mooy julli ji leen woor leen balaa ngeen def lii loolu may wax ñaata jeune ngay fekk duñu woor mais bëccëg bi dañuy góorgóorlu pour ut kafe góor góor góorgóorlu uti ay cin uti ay matt defar ko sonn ci lool coono biñ ci am buñ ko defoon ci koor gi moo gën a noppale ndax it nag dogloo nit ñi du farata ci ñooma ah. nekkul farata nekkul digle kon digle li boo ko tëbee loo def mbugal la ñaata ci nit ñi ngay fekk ñu jël weeru koor laxas ko sànni seen ginnaaw koor jot ñu togg ay ndogu yenu ko yóbbul ko seen kilifa mais est-ce que la jaadu woon kilifa ga mu leen a wax ni yàlla de tegul leen ngeen indil ma ndogu da leen a teg ngeen woor est-ce que kilifa bi defoon dana mel ni ana kan moo am audace nga nekk kilifa ñu jox la ndogu ñun ñi la ko jox nekk ay mukal mukallaf wooruñu yow nga jàpp ne ñun dinañ am tiyaaba xoola bu ñu nax suñu bopp ku jàpp ne danga nga ci am da ngay nax sa bopp loolu moom nañu xam naa moom saaga yi dana bëri mais balaa déwén xel yi dina ñëwaat danañ saaga ba doyal moom mais dëggu yàlla bi yàllaa ko moom yàllaa ko moom sëñ bi dafa am loo xam ne nit dangay ngay yeewu bala yàlla bind kilifa bi fekkewu ko ba muy bind kilifa bi fekke ko kenn ku nekk ba ngay dee sa moroom du ko fekke allahuma lu dul lu néew ku ne yàlla dana la taxawal dana la laaj dana la laaj lan moo doxoon sa diggante koor ba nga ñu duma woor yàlla mii sa kilifa bind la moom la moom sa kilifa sant la ko nga bafuwee ndigal loolu mën a def ndigalal mbindeef yow dañoo wëlbati sa xel mais ndigal li kan ko war a defal mooy ki bind mbindeef kon loolu lu mat a bàyyi xel na mbokk yi coono bi ñuy daj ci yépp di ko ci daj buñ ci waxtaanoon ak jeunesse bi rajo yeeg télé yi ñu ciy waxtaan di leen wax ne vraiment joxe café yi baax na joxe ndogu yi baax na daw ci télé yi la ndox góor ñeeg jigéen ñépp daw nga gis geste boobu mu rafet lool aka doon rafet su àndee koor kon dañ leen wax ni accompagnant lii accompagnant la mais ndigle li mooy koor gi la lay wan ni bu koor amoon coono gi doo ko ci fekk bërti bërti yi bu ñu wooroon doo ko fekk de kon bàyyi xel bu baax li la yàlla sant ndax loolu la lay laaj loolu mooy sa devoir yàgg sa boroom mooy wooral ma يونس بصلى الله عليه وسلم لأن افترض الله عليكم صيامه ليال فرطا الكيين كي ويرو كور موي ووركو سوما ديجي نك يومي خالي بو غور مبابو جيجين ديفانديكول سا خيل بول مير بول ساغا تيال نغا خول لي لا استاذ واخ اك لي نغا نيك سو تيي بو غود نغا تيي دغلو والله ديغا خامني نخومال ديغا خامني وروما لا دام لا واخ دغ te dëgg bii loolu lañ soxla de yowmal qiyaam xam nga luñ soxla ki nga la doon wax dëgg ngeen taxaw da nga koy ñee da nga koy fan mais ki lay nax da nga koy daw kon li gën yéen jeunesse bi balaa ngeen di defar ay ndogu fexe leen ba woor ba pare su ngeen ko defee falillahi alhamd ñaareel bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ci ñaareelu tomb bi ne tuftahu fihi abwabul janna weeru koor bokk na ci ngëneel yu rëy yi abwaabu sama abwaabu janna benn la yonent bi nee na <coughs> ginnaaw farataal bi ko yàlla farataal ci yéen ay bunti asamaan yàlla da koy ubbi su bu ubbee bunti asamaan mooy ubbi na bunti àjjana juróom-ñetti bunti yëpp ne pell bunt bu nekk tolloog arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin borom bi taala wa tabaarak ubbi ay buntu àjjana pour ñan la pour picc hein pour animaux yi pour ñun la motam mané yàlla def ñu yërëm def ñu bëgg ubbi bunti asaman mbokk xolal li la yàlla defal ubbil na la buntu asaman yow ndaw borom baangi lay wo ci ajjana jo xamanteni mo gëna yaatu asaman ak suuf jannatin arduha alsamawatu wal ard borom bi ne la uiddat lil muttaqin yow ndaw li fexeel nga bokk ci ñi ragal yàlla fexeel nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy njëkkante ci promotion boobu ngir dugg ci bunt yi xam nga olof day wax nii nee na séentu asamaan jarul xëccoo puusal ma xool déedéet ku teen rek gis waaw bunt yu tool noonu yàlla ubbi lépp ci trente jours ne la fexeel nga jéem a dugg première charte bi mooy wooral ba pare mooy première charte bi kon nga dégg ca boo woorul ndax li ci def bokk nga ci ah mënoo cee bokk parce que lii tax nga apte da nga ko bàyyi da nga inapt kon mënoo dugg ci moment boobu xëy na mën na ko duggee fere mais ci moment bi ak lii moo tax ubbi bunti asamaan mu nekk yërmande yàlla uiddat lil muttaqin uiddat lil musallin uiddat lis saimin al qanitina al abidina lillah yàlla dafa préparé ajjana ngir ñuy julli ngir ñi wor ngir ñiy toroxlul yàlla ci ay ndaw nak ak i mag mag bu jaamoo yàlla lu ama am solo la mais fu ndaw jaamoo yàlla mag jaamoo ko yàlla danañ xam ki ëpp valeur moy ndaw li ndax mom la lépp soxla mu ne ko fu ñuk moo bo nekké ndaw luy jaamu yàlla aduna da lay soxla da lay soxla tiaxan da lay soxla motax nek ndaw préserver sa bop dara gënuko nekk ndaw nekk jaamukatu yàlla wallahi boo nekkee ndaw nekk jaamukatu yàlla kenn ëpp la doole bal iblis day yéemu ci yow waxtu wu nekk day jéem a fexe nu mu la yàqale mbokk kon bunt yooyu ñu ubbi li la ko mën a may ci koor gi gannaaw koor dafa bari jàng alquraan a ngi fi qiyaamul layl mi ngi fi génn sarax joxe mi ngi fi alal bi la yàlla jox mi ngi fi nga teggi luy lor nit mi ngi ci dox sa diggante dëkkandoo mi ngi fi seeti ku feebar mi ngi ci yooyu yëpp nag nekk ay bunt yu lay yokkal maanaam mu mel ni boo wooree ba pare am nga appartement ca àjjana bu ñu raaxagul peinture guñ ko defarguñ soo jullee yaa ngi raax allahu akbar xiyaamul layli yaa ngi peinture boo saraxee yaa ngi dóor ay immeuble yooyu yëpp bu dajee boo nee xay ci àjjana boo duggee lan ngay njëkk a wax hada ma waada lii de la yàlla digoon alhamdulilah yàlla nañ ko yàlla may <coughs> mbokk yi ñetteelu mbir bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ginnaaw bu ñu buntee ubbee bunti àjjana pour ngeen daw ñëw bu ko defoon rek doy na sëkk ci ñu jaamu yàlla ndax bunti asamaan bu ubbi ko yëpp muy bunti àjjana kenn amul lay pour bañ a dem waaye yemu fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne wa yuglaqu fihi abwaabu jahim xoola mbokk ñetteelu mbir bi faveur bi la yàlla may te weeru ko rek la la ko may mooy ay bunti jahannam yépp dañ koy tëj allahu akbar ay sama borom ay bunti jahannam mbokk ndax ndaw li am xel ànd ak fitraam war naa dem di ubbi bunt bu ñu tëj te boo ko ubbee loolu rek nga cay jëlee yàlla mi jël ay bunti safara tëj ko yow nga ne yàlla noonu tijji ko mbaa ma tijjil ko sama bopp loolu mooy lan waaw loolu la de loolu jëf la de du wax yàlla tijjil mbaa ma tijjil sama bopp yàlla ne la loolu lu tax <laughs> non man damay woor mais damay uti xale yu jigéen ah. moy ut nga baramin ak pees di peese bunti yalla tejon diko ubi par force nga ubi ko parce que mëno baye xalé bu jigen par force nga ubi ko parce que baye bàyyi déglu musique par force nga ubi ko parce que mëno baye bakka moy bunti yalla yàlla ya ngi cherché pour tijji ko ndax ndaw lu am xel warna def lolu lo bon bon bon bon say say wéru warna war nga rousse sa bop d'abord mais rousse sa borom nga xam ni weer wii même ñi dul jullit dañu koy ormal ndax loolu la leen islam sant ci ñun ñu nit loolu la sant ci ñoom kon ñoom dañu koy ormal dañ ci muytu def sabab buy tax jullit bi dog kooram même ñi dul jullit kon est-ce que kii jullit war na koo def kon yow ndaw li ngalla waay bunt bu yàlla tëj ngir yërëm la bu ko tijji ngir toroxal sa bopp bu toroxal sa bopp mukk mukk mukk mukk ci ut ay bàkkaar ci weeru koor dëgg-dëgg weeru koor moom ku nekk ci ñun war naa góor góorgóorlu nag ba moytu bàkkaar nag bàkkaar moom kabaa'ir yi dañ ko moytu mu ne ñeenteel bi wa tuxallu fiihi maradatu shayatin allahu akbar mbokk yi weeru koor ay weer wu am solo yonent bi nee na yàlla dafa farataal sallallahu alayhi wa sallam ñu woor ko mu may leen beneen faveur ubbi na ay bunt àjjana dolli ñu leneen ne tëj na bunti safara may ñu nag bénéfice ne ñu nag wa tuxallu fiihi maradatu shayatin seytaane yi gën a grave yi doon tax nga njaaloo yi doon tax nga jëw yi doon tax nga bàyyi jaamu yàlla yi doon tax nga sàcc yi doon tax nga seetaan lu xaraam ñoom moom yeewu nañu leen sànni jahim kon boo bàkkaaree war nga leen a tuumaal ah ñi doon tax ngay njaaloo takk nañ leen tëj leen kaso dëgg-dëgg am nga liberté kon boo demee njaaloo ji moom yaa ñoom lu ngeen bokk ah yow ndaw li dañoo tënk seytaane yi yeew leen jatañ leen sànni biir jahannam lutax bakar ngay bakkar ci bëccëgu weeru koor bakar eh? kon bo bakkaré fala taluumanna illa bu li yedd kenn ñu sa bokk rek ngay iya yedd donc suñu benn góor nee na yàgg tuuma baaxul ku ne yàgg bett ci lu bon baaxul bis buñ la waxalee lu dul dëggit ñëpp dañ naan dëgg la nee iblis tàmma def lu bon moo tax bu ñu ko takkee weeru koor ku def lu bon ne seytaane rek la du seytaane yow la seytaane tënk nañ ko lan la mun a defati yow yaa bàyyi mu jëmbat ci sa xol jëmbat jëmbat ba bàyyi fa ay grain grain yi mu fa bàyyi ambassadeur am nga moo tax mbokk yi weeru koor nga gis ambassade seytaane yi yi nga xamante ne sayaatiinul insi lañ seen direct seytaane ciy dox yàlla yàlla teggil leen ko ñooñu bëccëgu weeru koor nga gis leen ñu ne ci musique wallahi da ngay gis ñoo xam ne seen métier mooy animateur lañ ci ay góor ak jigéen rëy miñ lool nag mën a wax musiba te ñi leen war a wax duñu ñu leen wax lañ ñu leex déglu naa benn animatrice mu am benn waay boo xam ne am na benn sëriñ boo xamante ne lu ne nii rek mën a safara bi mu waxee kuy déglu mi rek ak ñi di animateur safara lañ jëm benn animateur bi mu koy tontu daf ko ne bu dee safara da yombul ndax li ñuy liggéey ci la ñuy dundal suñu papa dundal ci suñu yaay dimbale ci suñu njaboot xoole sénégalais ni muy déggee moo yomb quoi yow dimbale sa papa sa yaay rek day tax sa sa bàkkaar yàlla baal la ko ah loolu est li nga jël teraanga du teraanga parce que bàkkaar du nekk teraanga lii nga jël muy métier yow jigéen gi ne animatrice nga yow góor gi imaginer leen animateurs yu góor yi ak teen boo leen xoolee daanaka ñëw jigéen sorewuñ ñu baal ma ci wax bi parce que ki nga xam ne animateur mooy nekk métier am léegi luy métier am fecc taatu wax wax yi ni jigéen parce que li muy def geste jigéen la lu loolu la nga fekk koo xam ne loolu la jël comme métier yow jeune bi nga yore sa portable ci weeru koor nga xam ne portable li ñuy wax ndeysaan silaaxun zu haddayn jaasi bu am ñaari ñawka la day daggee gauche di daggee droite nga yore portable bi nga dem youtube wala nga dem facebook fekk fa quran fekk fa waaraate fekk fa jaamu yàlla waaye fekk fa musique fekk fa njaalo fekk fa nga jël sa portaable nga war a bokk ci asxaabu yamin nga jàdd dem asxaabu simaal ku la fa yóbbu li ngay déglu ku la ko déglu lu en tant nga woor ba pare jël koor gi di ko toj mu mel ni manque boo ëf ba mu mat nga war koo téye daal nga jël puso ne ko ci pëy nu muy def kon yow mi woor moytul déglu musique moytu ko ndax musique day jëmbat naa féq ci xol loolu la salafu salih wax al aghani yumbitu nifaq fi al qalb boy déglu musique sa xol day nekk xolu naa féq dootoo am xolu ragal yàlla sa xol da fay dis kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuun motax musicien bi teug kat bi pour mu wax lu bax lu jafe la dina ko bëgg ki dem ba màndi ci tëgg musique ak caaxaan bala nga xamni tiaxan mo bon ni mu dise non lay yombé ci kiko tam non lay yombé ci kiko tam boko fi tegalon julli léegi mom problème motax ان اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر wal fajr julli bi gën a diis ci naafiq yi mooy julli gee ak fajar moo tax booy fajar tuumaal sa bopp la ne man baa bokkuma ci gaa yi amul liggéey bu la ko mën a justifier nag amul de ndax liggéey bii du sa farata sa farata mooy julli fajar ba xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ na ko ba daf ñu njëkk a bégal ci kiy nodd ne assalaatu xayrun bànneex boo am ci nelaw jullee ko gën saa waay dix minutes daggal dawal jullil ñëwal nelawal ba seize yaa xam nelawal ba dix yaa xam mais nan nga mën a toogee nga jël ni man gardien laa damay liggéey du ma nelaw yow boo dee gardien foofu nga gën a amee chance xanaa kay boo commencé guddi gi balaa ngaa pare sept heures wala huit nga fi mën a julli wala ba bu dee noctambule nga comme ni ko xale yu góor yi waxee non man noctambule la quoi du ma nelaw guddi lu la tee nelaw portable surfer ay film seetaan ay fo dugg noo li dox nekk dugg noo li wut dugg ci affaire yi seetaan ay caaxaankat nekk ci ba deux heures du matin trois heures du matin nga ne galam tëdd boo ne galam tëdd seetaane seetaan la fa ngay nekk da ngay nelaw da ngay nelawa nelawa nelawa nelawa nelaw ba boo moytuwul subhanallah jamono bi ñuy ubbi bunt yi euh, jamono bi malaaka yi wax wërsëg yi la ñoo fekk yow yaa ngi nelaw moo tax nattu bi lay dal sa yaram day diis gan sa digg ak sa borom da ngay am kersa parce que da ngaa nelaw ba pare ñi yeewu tanewulil yow surplus ci say nelaw taxul nga tane kii nelaw lu yem yow mi nelaw boo doyal sax par contraire par contre yaa am problème ndax yow mi nelaw a nelaw a nelaw ba heure yi boo jógee da ngay tayyal feeram day fasu parce que iblis dalaa fas yonent bi nee na iblis day toog ci doq kenn ci yéen fas doq bi fas articulation yi benn par benn koo gis mu biddante rek dañoo fas yooyu ci moom moo tax boo ko fëggoon buy jógi day mel ni ku ñu yenn ay tol wallahi day mel ni ku ñu yenn ay tol du mën dara day tayel ba pare nag am kersa kersa gi mooy boo dee borom jabar wala borom doom pour nga jóg sax day nekk problème boo yeewoo pour nga julli da ngay làqatu def ni sama waa joxoon di julli ci salle de bain bi man wax dëgg yàlla départ salle de mën a mën a oustaz damaa rus oustaz damaa rus quoi bu mu taxaw di julli ñu may xool quoi kon def làqatu côté bi julli xoola ma te parce que xam nga nelaw ba deux heures ci mu kàlla nelaw ba deux heures say doom di dàqante ci perron bi nga bëgg a julli fël rideau bi taxaw côté bee non non duggal ci biir quoi mais entrée bi la ko mën nga entrée yow ci salle de bain ngay julli nga dama entrée bi la loolu mooy gàcce moo tax gis nga non mbokk yi sabab diine kenn du ko fooye boo juuree da am kers bu ko defee nag léegi la lan la lay tegaat da tegaat xol bu tàng ku wax ci jaamu yàlla sa xol metti ku wax ci julli ku wax ci njëriñ rek nga commencé ndax da ngay jàpp ni man lay wax foofu nag boo fa àggee nag tuumaalal sa bopp xamal ni feebar ñëw na feebar boobu yow jeune bi faj ko dawal benn bi mbokk yi ki jël méccam njaaloo ci weeru ko kooku est ce que sañ naa tuumaal iblis xool leen li ñuy dund musuma foog ni sénégalais yi àgg nañ ci osé fii néew na nga ubbi facebook lu dul nga gis jongama xale bu jigéen jongama toll ci dix-huit ans ba vingt-cinq ans wax ci boppam yi ko neex yépp wane xaaju yaramam maa ngi Nord Foire xam naa ñu dëkkum Nord Foire nañ ma baal fan laa dëkk joxe numéro whatsapp am joxe numéro wala wala wala maa ngi dëkk mixta ay xale yu jigéen di propagande ci facebook bi di wane ne ñoom seen métier mooy jaay seen cër tudd ay maymuna ay xadija ay aïcha ñu jàpp ni li ñuy def lu valable la suñu état valable la leen ko parce que état laïque la mën naa valable fii de Hmm. wallaahi bis boo duggee bàmmeel da nga xam ne jaay sa bopp du métti yow xale bu jigéen du koy def tiital dëkkal fu la neex tuxul boo dee ndar nga dëkk ñëwal Dakar bu dee Dakar nga dëkk demal Murtani dafa lu la neex nga foog ne fa nga dem yàlla newu fa yàlla ne moo lu tee nga rus ma yaa abdi limaada tastaxyi min annaas wala tastaxyi minni lu tax ngay rus nit ñi doomu rus nga daw ba fenn ut fa sa appartement ñi jël métier mi tuddee ko massage ay jigéen di massé ay góor am sax nité yokku massage plus plus dina la xamut lan la mom <laughs> mu na massage rek mais plus di moom war nañu lijeenti lan la ay jigéenu julit billahi ñi koy def ay julit lañ ay jaamukatu yalla lañ ay doomu julit ñu bëgg lu baax lañ dañu yena nax dañ leen parce que dañoo jël àdduna jiital ko ba jàpp ñu loolooy métti ñu yombalal leen ku bëgg a bi ji dem faju nekk ay nit nag ay jigéen yoo xamante nii lépp dañu leen a yombalal ne yow yowmal qiyaam boo ànd ak Oumar Sall da lay yóbbu amul benn problème loo neex defal nga gëm lu mel noonu waxuma nag Sénégal rek la am de àdduna bi fépp la am actuellement lu mel noonu boo dee ndaw nga di ci dund moytul moytul du bunt bu tëjee rek nga fëgg ko déedéet du bunt bu tëjee nga fëgg ko am na ndaw loo xam ni daa fëgg bunt boo xam ni ca la àddunaam yàqu fëgg bunt gis yu mel noona dem ca ah dañ ko mujj yenu indi seen kër fu mu mujj àddunaam fuuti na àddunaam yàqu na yow ndaw préserver sa ndaw yow jigéen ji li ngay jaay moomuloo yow góor gi li ngay jënd moomuloo sa force bi nga am liggéey ko ba mu dagal nga jël ko gis jigéen ci facebook bi di jaay boppam nga ni naa dem jënd boppam bi isal baai wal mustari ki jaay ki jënd xaw ma ku ci gën a yées wala iyaadu billah te yéen ñaan ñëpp فاتنجن يوم العرض على الله فاتنجن يوم تبلى سرائر بس بسكر يفيني غنك خلبو جيغن تاو ني عائشه مريم لو دونون ميتيم بروستيتي لا اله الا الله ميمون لو دونون ميتيم بروستيتي لا وون لين شكرا كانامو بيندي سي با لين سن داي لين yóbbu leen jahannam appartement boo xam ne tanuur la teg leen ci ay fuur yow ma jëndi woon lu lewul ak yow ma jaayoon lu lewul dañu leen di futti ba ngeen set ngeen taxaw ci fuuru jahannam seen yaram deret bi pay bi dëtt bi wànjar gi lépp di siit di wàcc ci suuf loolu di fa wàcc ndox moomu moo tudd tiinatul xabal ndaw lu bon tiinatul xabaar mooy usaaratu ahli naar mooy li ñu nalee ci moykat yi nekkoon safara waliyaadu billah xale yi jigéen yi daw leen tiit leen seen mbokkay wax ak yéen li ñu leen di wax bàyyi leen ko xel wallahi képp ku dee ci prostituée nañ la jàngal kaamil yi ba ca kaaba ga da nga am problème yowmal qiyaam yow mi koy defit noonu te li ci gën a wóore di yow xale bu góor bi dem di jënd loolu yaa ngi foye sa santé yaa ngi foye sa niir yaa ngi foye sa bopp yaa ngi foye sa bopp wallahi ladi laa ilaha gayruhu xale bu góor nee na ma oustaz dimbale ma faj ma mën nga yow xanaa da nga doon njaaloo mu a ma doon naa ko mais pare naa ci ma ne ko pare woo ci da nga amatul pexe bakkan kenn du ko sànni dem di fay di njaaloo jëlal ay matt taal ko tëdd ci moo ko gën mu musiba la ndaw da ngay sa bopp amul dara lu yàgg ci àddina téyel sa bopp muñal yow mu jigéen mi téyel sa bopp muñal yàlla mi la jox taar yow jigéen ji li jigéen soxla yëpp yàlla jox la ko bu dee kanam gi jekk na bu dee jëmm ji jekk na taar gi am na loolu yàlla jox la da ko waroon a delloo xorom si borom bi nee na la in shakartum la azidannakum su ngeen santee ma dolli yàlla may la taar yow jigéen ji soo génnee ku la xool yéemu loolu dafa waroon nekk sant yàlla mais iblis nekk ci sa xel mi doxeen nii xale yu góor yi barke nañu daanu nañu nàngam ngay daaneel di daaneel bis dina ñëw yow la ñuy daaneel yàlla nañ ci yàlla mosoo ndaw li bàyyi loolu xel bokk na ci beneen conseil bi ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nee na mbokk yi weeru koor mu ne fiihi laylatun xayrun min alfi shahr yonent bi nee na am na ca guddi goo xam ne nag moo gën junniy weer junniy weer mooy quatre-vingt-trois ans ak trois mois quatre-vingt-trois ans ci ban at nga mën a am loolu ci ban weer nga ko mën tam lu dul weeru koor moo tax même boo bonoon weeru koor jéemal baax ci bëccëg yi ak ngoon yi mbokk ndax nga tombeek kañot bi kañot bi mooy laylatul qadr nga tombeek moom soo tombeek moom yàlla jéggal la baal la bàkkaaru juróom ñett fukki at ak ñett ak ñetti weer soo ko amee ren am ko déwén amal ko ginnaaw déwén sëñ bi bu ñu ki calculé ñaata ba ngay am mënoo ko am fenn mbokk ci weeru koor rek nga ko mën a amee pour nga am ko ci weeru koor nag mooy da ngay dundal guddi yépp dundal bëccëg yépp ngir di sàkku moo tax sahabatul kiram juróom benn weer bu demoon rek li ci ñu ko commencé na allahuma ballig naa ramadan yàlla àggale ci weeru koor yàlla may ñu am sax ba mun koo woor parce que loolu lañ doon uti ñoom utuñu woon ndogu lu neex utuñu woon kër yu neex mais lu ñu doon ut mooy yàlla yërëm leen ba ñu tombeek guddik laylatul qadr guddi googu mbokk boo ko tombee xayrun min alfi shahr ndax borom bi nee na salaamun hiya hatta matla'il fajr Jam rek lay doon ba bët set mbokk yow ndaw li baal xel loolu kañat bi nag mooy leelatul xadr soo ci bëggee bokk fexeel ba ya na nekk sa kër yow ndaw ndaw day ñeme jàkk bu déglu ñi lay wax naan da nga bëri jàkk tànk ku lay wax loolu boo bëree ci dansine du la ko wax te nag ku demul jàkk rek dem dansine Ah waaw ku demul jàkk dem dansine néegu yàlla loo koy dawee néeg boo xamante ni sa borom moo ko moom ubbuñu ko ubbil la ko nga war a julli ci nga war a dem naafila ji taraawix nga bëgg a commencé naan dafa affaire dafa gudd quoi li imam di tar dafa gudd quoi suratu bayi na sax bu ko taree nga bëgg am feebar non yow da ngaa feebaran ah. ligue des champions ngi nii yaa ngi koy seetaan taxaw ba mu jeex tak ñu dolli ci l'équipe de dimanche nga seetaan yëpp feebaroo buñ ñee allah akbar nga feebar faju jil nga faju yow xale bu góor bi dañ lay nax ñi ngay seetaan di kontaan ñooy lekk milliards yi de ah Benzema dafa triplé tee ngaa triplé julli <laughs> tee ngaa triplé woor ah Mbappé dafa kii tee ngaa Mbappé julli loolu nga am yi kee moo koy lekk da nga fii ne di wax rek perte moom mi ngi dem yow yaa ngi toog xale boom vingt deux ans demul vingt yow yaa ngi trente cinq ans war a jaam nga taxaw ne la non booy bi star la quoi jullit kenn war ta nekk star ci kanamam ku dul jullit ni moom ku gëm yàlla kan mooy star sa kanam ku la gën a dafa am ki ngay tagg du jaamu yàlla faalewul yàlla kooku day tus da nga ko war a xeeb sax ngay yëkkati ko perdre sa temps ci moom xamul sax yaay kan looloo ci gën a deena billahi non gars yi da dégg ñuy wax ci jur yi ba jàngal mais mais ñii ñii xanaa ñoog jur dañ leen a nàmpal ba lépp nag ndeysaan iblis da koy def day jékki rek kenn génn benn footballeur génn rek ngeen mooy waat قلت نو في دي سكاي نانغام نانغام في دي جامو دي يالا فاليو دي يالا ميغي فوتبول ميغي دور تيغا دم تي جاكا دي جولي اخي بو نك با نيو يوم الخميس غاي بات ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من مك بال لولو خال ديلو سيب ديلو سيب لوتي مونتي ديف نداو نغا نداو كين دوكو واخ دو فوخ ndax nag sa yaram laaj na fo mais équilibrel affaire yi góorgóorlul ba def fo bu dagan boo dul amee bàkkaar waaye bu mu doon luy dox sa digganteeg jaamu yàlla bépp fo bu la jaamu yàlla loolu nekkatul fo musiba la lépp lu sabab nga biddanti fajar musiba la kon yaa shabab bàyyi leen xel ne فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بوك ما نلي دينك رجال يالا ديكو دينك سام بوك ان تانك جيل دينك رجال يالا مو ني ديمبل بروم بي نينا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ديمبلنت ديم تي لي باخ اك رجال يالا بولين ديمبلنت تي لو خامي دا فا اندي نونو ما نلي دينك wa an taatasimu bi hablillah wala tatafarraqu mooy leen ci buumu yàlla bi ngal la bu leen tàqalikoo tàqalikoo bon na ci weeru koor la gën a bon àdduna yàlla bi ni muy toll Sénégal rek ngay gis ñetti weer ñetti koor ñetti tabaski dañ ñoo séddale neexul wax ku nekk war ngaa dox ci lu ko jéem a dindi ñu xam ni weeru koor weeru boole la nekkul weeru tàqale ndaw maa ngi dénk sama bopp dina dénk ixlaas al amal fi kulli shay sellalal say jëf ci lépp borom bi nee na wa maa umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu ddin te kat fa man kaana yarju liqaa rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi rabbihi ahada li ñu tënk bëri na mbokk nañ ko bàyyi xel koor li ci gën a neex borom bee la koy fayal boppam borom bi nee na kullu amal ibni aadama la illa siyaam fa innahu lii wa ana ajji bi muttafaqun alayh yàlla nee na bépp jëfi doomu aadama moo koy téel boppam say tuyaaba malaakaa la koy fay neneen ñëw di la ko jox ndeysaan ba mu des koor koor yàlla nee na maa bég ba may joxeel sama bopp allahu akbar may bég ba may joxeel sama mbokk mbaa yëg nga ni ajjana am na appartement boo xam ne rayyaan la tudd kenn du fa dugg lu dul woorkat kon góor góorlu ci say farata mbokk mbokk woor sëkkërale sa diggante ak sa borom taxaw ci loo mës a góor góorlul bu baax a baax nga nga taxaw ci insha allah rabbi euh, yal na yàlla defal ñu jàmm euh, defal leen ko li ñu waajal ëpp na lii mais li ñuy am ci waxtu moo àggul foofu waaye jàpp naa ni bu dee luy jëriñ mat naa jëriñ bu dee luy yàqu mat naa yàqu ndax liñ fi jot a wax lu ñu waxaat rek day ñëw muy dëgëral loolu mais nekkul luy tasaanu kon ndaw ñi góorlu leen ngeen waxtaan ak seeni mbokk góorgóorlu nekk ay duaat ila allah di woote ci yoonu yàlla waaye nag ngeen góor góorlu ci néegu yàlla yi dundal leen ko dundal leen néegu yàlla yi ndaw dafa war a bokk ci ñuy dundal néeg di ko bale di ko defar di cotiser di dimbalante ñun loolu la am amuñu leneen yàlla ñu yàlla defal jàmm defal leen ko incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu